kay mooy faaf ca jamono jooje 24 heures di ñu xamal ne accident yi kay jamono ji mi ngi gën a yokk ci réewum Sénégal ndax démb rek am na benn waay boo xam ne def na accident métti réew mi quotidien di ñu xamal ne mbir yi kay gën naa yaatu ndax fi nga xam ne nag moo di sookoon accident bu métti am na fa yéeni kaay bi di laas quotidien moom na xëy tàgge ñu ki nga du jaawara moom mi nga xam ne nag moo nekkoon njiitu réewum Gambie ci ay jamono ale site quotidien di ñu xamal ne Adama Barrow yëkkati kàddu daal di seedal ki nga xam ne nag moo di jaawara yéeni kaay bi di ñu xamal ne moom Adama Barrow kàddu yi nga xam ne daal yëkkati na ko jëmale ko ci fànn gu nu mel moom kay dafay xam ne ne àdduna ñoo ñàkk ca jamono jooje direct info moom sam pablaaj lépp loo xam ne nag jëm na dorog bu bëri bi nga xam ne daal dañ koy jàpp ci réewum Sénégal yéenekaay bi kay bi dañu xamal ne jamono ji kay mbir yi kay dafa ne dañ koo sulliwaat ndax ñi nga xam ne nag ñoo ànd ak ñoom Abdoul ji nag la sàkku moo di maanaam mbir ñu daal koy gaawal ba ñu xam nag mbir yooyu nan lay mujjee ca jamono joojee critique yéen di ñu xamal ne mbir yi kay jamono ji ma nga desee ci nga xam ne moo di procureur fekk leen ma ci la tribune yéen buggaan gay dani gi di ñu xamal ne a mooy njàngum Sénégal ndaxte jamono ji nguuru Sénégal mu école privée yi nga xam ne daal jafe-jafe la ñuy jànkonteel yéen kaay bi jàpp ne état ñaar ci ay milliards la leen yoreel enquête yéen kaay ni jafe-jafe yemul foofu ndax hôpitaux yi nga xam ne nag ñoo nekk ci réewum Sénégal bëri ay jafe-jafe yoo xam ne ñoom itamit ña ngi koy jànkonteel ndax lépp loo xam ne jëm na ci manqué ay spécialiste maanaam dañ koo manqué lool waaw nag ay norool xam ne daal waroon nañ ci am téeméer ñaar jamono ji ñaar fukki dong lañ ci am leen ma ci moom la jàppee woon jabaram noonee lañ ko mën a waxee yéen na ko l'observateur kàddu yi nga xam ne daal toorooda yëkkati na ko dafay xam ne maanaam daal moom li ko yàlla xiir ci ñi nga xam ne moom lay dem muy jigéen ñi nga xam ne seeni jëkkër dañoo gaañu wala ñi nga xam ne daal dañoo tas ñooñee la awa toorooda di coxaaxam ay awa toorooda hmm, yaa ngi tooñ toorooda yi de baax na ba suba. Elhadji Ousseynou Ndiaye